salaamaaleykum alayhi salaatu salaam nee na jamono ngi ñëw jamono yu jege lay doon te jamono ju jege lay doon nee daanaka ñëw na réer gi dana dana këpp kaw suuf wër gi dana daj kapp suuf xam-xam niiw lool njaalo bari ba daanaka léeg-léeg nit ñi dañ koy daw téewul mu di leen song naan sàngar nag foo gersu gis ko waaw jigéen ñi tabaarakallahu waaw wa yakthuru al xërëj xërëj ñu ko ali salaatu salaam luy xërëj mu ne al qatl ray gi fotul dig diw ray nañ ko fe sangam diw ray nañ ko di ray nañ ko dag bob di ray nañ ko sul ko rek ali salaatu salaam nee jamono ngi ñew jamono ju rayante di bari la waye ay at yu ay at yu war ci sama wi lu wax te dëgg ñu fenloo ko lu waaye wax te muy fen ñu dëggal ko ku woote yoonu njub ñu daal di fooyu ku woote yoonu fen ñu daal di xooyu waaw aalim ju wax dëgg ñu faf jengal ko jaahil ju wax ay fen ñu faf dëggal ko jamono ngi ñëw goo xam ne ku dul wor duñ la wóolu waaw ku wóor nag ñu war la jamono ngi ñëw ku dul wor duñ la wóolu te ku wóor ñu war la waaw Euh, jamono ngi ñëwit nit ñëpp ay spécialiste général la ñuy doon lépp la ñuy xam da gis koo xam ne menn mbir képp la xam waaye bu ñu indi woon fukki débat mu ñëwee cee dugg benn bu ne mu jàpp ne moom la xam ci loolu de doo xam ne mu ndir moom nee na jamono ngi ñëw daañu daganal soy daganal sàngara daganal yu bon yëpp nee na sama jamono ngi ñew sama euh dañuy jël sangara di ko soppi truwa way samunaha bi ismiha soppi truwa ngir man ngir man ko mën ko jëfëndiko rek allahu akbar jël lu bono bono bon fexé ba soppi truwa ki ger naan damay neuy neuy murid wala damay barkel wala ma ngi lay ziar te ndekiti yo ab ger la tuddu <clears throat> ali sar sam xamna lepp lépp jamono na ñew sama xet yi jëflanteeg ribaay yi dana bari lool waaw nee ku mucc ci jëflanteeg riba sax doo mucc ca pënd ba waaw faaw mu ba faaw mu fere mu feresu la moom nee nga ñëw sama xeet yi ku bëgg a dund sa diine da nga mel ni ku teg say tànk ci xali safar waaw ndeysaan nee na saa soo yëgee ne amaana confiance jeex na ci kaw suuf rek yëgal ne yomal xeem ñëw na waaw nee na <clears throat> benn bis dama bëgg samay bokk <clears throat> ñu ne ko yaa rasulallah noo ngi nii mu ne déedéet yéen samay saxaaba ngeen waaye samay mbokk yi mooy ñi ñëw sama gannaaw di ma gëm lool te duñ ma gis nga xam ne ñoom buñ defee benn yiw dañ leen di fay lu toll juróom fukki yiw ci bu ngeen ko jëfoon yéen bu ngeen defee benn yiw ñoom ñu def benn yiw ñoom juróom fukki yiw lañ leen koy bindal yéen ñu bindal leen ko benn ndeysaan ndax yéen seen yiw bi dama leen ciy dimbale ndax maa ngi nii ci seen wet ñoom nag gisuñu ma waaju maa gis waaye bëgg ma ba kenn mënta natt seen bëgg ci ñun